Bienvenue sur Salam Vision. yeah Sénégal ah, man la Assane Diouf encore xam nga maa ngi dem live direct xam nga waa digg yi ñoo ñëwaat sama kër xam nga nee nañ par force xam nga jox leen ma ko wax naa samay avocat wax naa yëpp xam nga nee nañ par force dañuy dajji seen marque la yor nag ak seen i bagage comprendre nga eh ndewali arrière al fële bu leen leen def dara bu leen def dara bàyyi leen leen ñu def lu ñu bëgg a leen leen bàyyi leen leen parce que wax ñu ngi wax ak seen seen commissaire ci boppam bàyyi leen leen bu leen bu leen bu leen nekk di def dara. non bi parce que dañ dama am ay droit yee dama am ay droit Soda Ba yee yee convocation dañ la koy jox wax la heure nga dem wuy ji yee xam nga grand demal toogi demal toog yeah non non non non non non samay avocat laa doon waxal léegi non noo non non non non dajji leen non non non dajji leen sur léegi mooy mooy bu weer bi yàgg na. alxuraanu karim bu ma sa loxo laalee dootoo ko defati damay caméra sama ndey ngeen xool ne ma damaa dof di la xool. Samba. yow dañ nekk ngeen rafetlu et public. man mii lay jéem a Mamun. Hey, Mamun. Mamun uyuyor. Mamun uyuyor. Mamun wàcce. moom moo ñu ko sant bi ñu gëm la boo ko sant. lii nii réew jaay doole lañ nekk. dañuy jaay doole. bu jamono demee ba kuy sëy. jaay doole jaay doole la.